parcours Pape Matar Sarr kan moo bëgg xam parcours Pape Matar saar topp leen ma moom nag mu ngi juddoo Thiès fa yaro yaroo fa la màggee fa la defee lépp benn moment jaaroon Dakar ci tantam c'est normal parce que boo dëkkee Sénégal nu mu def dengen nga dem Dakar parce que Dakar moom mooy capitalu Sénégal la commencé commencé si ben ASC bu ndaw bu ñuy wax Walidaan Walidaan sax mën nañu wax ni foofu la lépp commencé parce que foofu la ko ñëpp commencé xamee ndànk-ndànk si ben famille boo xam ne nag dañoo bëgg football lool macha allah famille bi ñëpp xam nañ bëgg football ba tax ni sax papam entraîneur la woon foofu noonu ci jiwaanu Thiès moom Pape Matar Sarr nag di dem ñu koy muy am ay sélection yu ndaw ndaw ndawaan xam nga jamono jooju rek soo mënee football da ngay bokk ci ay sélection yu ndaw ndawaan benn certain temps ki nga xam ne nag moom mooy génération foot génération foot benn centre la bu nekk fii nii ci diwaanu Sénégal boobu nag en la woon 2015 ñu daal di ko woo bi mu demee nag mu dem région li nga xam moom mooy génération foot benn moment équipe nationale bu ndaw bi U17 woo ko pour participer ci coupe du monde U17 bi mu demee foofu nag ci la coow lépp commencé maanaam boobu noonu 4 match la bi yëpp ne waaw booy bi de tôt ou bi en 2020 nag mu signé fi nga xam mooy FG Metz waaye li si mooy Pape avant mu dem FG Metz moom xamoon na baax dem moo tax ñu préparé koon à l' avance en nag mu dem fi nga xam mooy Tottenham avant muy dem Tottenham aussi daana joué yu bëree bëri bëri ay tournoi ay championnat Sénégal fii joué na ko moo tax Pape ba mu demee FG Metz ak Tottenham mu am benn expérience ci même boobu aussi ci la waa Sénégal woowee Aliou woo ko pour xam ne nii ñoo jëloon Coupe d'Afrique bi moo tax nag mu am benn expérience ba mu ñëw foofu am lu mu doon joué bëriwul waaye gagné woon na benn expérience boo xoolee moo gënoon a ndaw ci équipe bi parce que Pape Matar Sarr bi muy dem FC Metz 19 ans kese la amoon kon Pape Matar Sarr bi muy Sénégal maximum 20 ans lay am wala 21 ans moo tax Pape Matar Sarr bi mu ñëwee foofu gars yi dañ koo comme benn xale bu ndaw maanaam des fois ñu ko la woon waaye malgré loolu nag amoon na benn parce que ku jaar ay jaar ay génération jaar Wally Daan jaar FGMS jaar Tottenham kon da nga am expérience mag kon mën nañu wax ne tey parcours Pape Matar Sarr leen indiloon sama gars yi fii deux jours mu indi leen beneen joueur Sénégal xam nga des fois da am sa joueur bëgg a xam parcours am te ñun waa Sénégal suñu interview yi dafay duré une heure de temps wala trente minutes moo tax gars yi duñu am temps baax a baax di déglu yenn interview yi moo tax duñu xam suñu parcours yi star yi waaye tous les deux parcours am wax parcours am fu mu jaar ci minutes wala maximum 2 minutes. kon nag bu leen fàtte abonné te bés cloche de notification bi te ngeen wax ñu ci commentaire yi yéen star ngeen bëgg ñu indil leen seeni jaar jaar kon nag fi la ñu yem ak yéen ba beneen yoon ak Authentique Prod.